يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل همه الزير دي طبطب waaw na ngeen def waay yaa ngi jàmm ana paa bi. paa bi ngi si biir. waaw moom de lañ soxla woon. yàgg na moom si biir. waaw ah, waaw jërëjëf. André. salaamaaleykum. ah maaleykum salaam. ah kon ah, bu yar bi na nga def. Ah, kii la eh, eh, eh, bu mu yegsi bu mu yegsi. bu mu yegsi bu mu yegsi bu mu yegsi. déet papa bu mu yegsi. déet déet déet bu mu yegsi. déet ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay. papa yaa ngi jàmm bu baax. maa ngi jàmm bu baax. yaa ngi jàmm Pape trop de. waaw ah, maa ngi fi rek. yaa ngi jàmm baax. maa baax la fekk yaa ngi ci course de. maa ngi ci bu baax. alhamdulilah naa de. ah déedéet waay Pape bu ma mere xam nga man. da ngaa nekk kii la lan lay sama kër. waay ah kii nga xamante day dóor mag. dëgg la Pape day toroxal mag. dëgg la fan yii maa ngi sama yëpp a ngi métti. dëgg la ah. waroo ànd ak kii sama kër de. bu baax loolu sax moo tax tey comme nar woon ñëw man naa def lu tuut ànd ak moom moom mooy man ma maay moom Hmm. li ma la wax rek deretu mbër bi daw ci yaramam moo ko yóbbee yi mu nekkee waaw ba tax na daal ma tey jii ba may ñëw pendant ñu mën kese ma ne ko léegi nañ dem nga baalu paa bi ak nekk ci yoon te ndaw nga amaana ñaanam bu la dalee mun na mun na réussite mun na ci am daal a ma ko baal du ma ko baal say gënu pap lañ sa pap la ñuy seet sa pap mm-hmm. lu ñu wax sa pap lañ lañuy seet ah sa papa da lañ laajte entraînement si biir xàmmee woo leen sax oo ma leen fenn. nii yëpp maa ngi tëdd sama bopp baa ngi métti. Ah. Uh-huh. ah dama ko jégal daal. bi jégalu ko papa baal ma jégalu ko déedéet. jégal papa jégal ko. su buggee ma jégal ko day wàcc fii day sukk fii sama kanam ma jégal ko. papa déedéet waaw def noonu. day sukk fii day sukk sukkal fii ma jégal la. naa la nag ah. jégal naa la te yaa tax. mais del ba del bàyyi dóor mag dóor mag baaxul. dóor mag baaxul. ku ne ko dóor mag. dóor mag baaxul. ñu ngi jégal ah, jégal naa la. ñu ngi jégal bu baax. waaye ginnaaw ay jàmm. dëgg la tamit lii bu mu la di dal. dëgg la warul sax ñu topp di la wax yenn yi ndax suñu kilifa nga. mais amaana lii bu fekkee day am rek. ñàkk xam mooy waral yenn yi ndax moom mi waru laa dóor ndax bu xoolee papam muñ kër ga jàppee la comme papam waru la def yenn yi ñu ci jégalu nag bu baax comme moom ñoo na fi tuub jégalu ah ñun tam ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax waa en fait comme bii doo mel ni ku xamul nii dama nga may leen ndox perte gañ ndox nii la de xale bi man def ma lakkal def ma lakkal sonal ma dañ nekk ay xale parce que nag sama yaay laa ko tuddee di gone bu xamante ma dama ko tuddee sama yaay wallaay mais yéen yu baax ngeen ngeen gën a góorgóorlu rek waaw keroog bi ma demee wata suñu ma damaa ci baal nekk laa xalaat rek ah. euh, si ma <laughs> waaw ko ñun daal yaa ñu gën xam fii nag Sénégal la de fii lépp lu ñu ma waaye mën a def ah. dañ koy jéggale ah, kenn du yow de ñun si réew mi ñu nekkee dañu dañu xam luy jéggale hmm. ak di jëllale ñun noonu lañ dundee mais jërë ngeen jëf fii seen kër la hmm. da ngeen góorgóorlu bu baax te di bàyyi dóor mag hmm. dóor mag baaxul de doo génn ci loolu daal dóor mag baaxul dóor mag baaxul doo génn ci loolu daal laa gis nga de <laughs> ndeysaan naan leen ndox mi naan leen bàyyi réew jom baax saa yu baax ah góorgóorlu si liggéey de alhamdulilah góorgóorlu bu baax a baax <laughs> mais yaa ngi jàmm bu baax nag. ah fii rek. yaa ngi ci bi rek. fii rek di liggéey bi nag. ça va papa ñu ngi na góorgóorlu waaw sax ah li maa la maa laaj naan la looy liggéey. Mm-hmm. fan ngay liggéey yow. waaw man de papa ci benn euh, société laa nekk fii. société bu mag. Mm-hmm. mais sama copain moom yàlla def def moom dafa bàyyi lépp ngir bëre. ndeysaan te di dagaan rek ngeen ñaanal ko bu baax. non ngeen ko ñaanal ñun moom amaana. Ah, champion yi lañ bëgg te champion bi ñu bëgg mu ngi ci moom. waaw ah, dëgg la ah, kon moom li des daal moom mu ngi moom. mais man moom man maa ngi ci benn société ba nga mm-hmm. xamante ne nii am rek. waaw jàpp taw baay daal. góorgóorlu rek gis nga mm-hmm. société moom leen rek ma si jaaxal. Mm-hmm. société yi daal léegi da ngay def nii def nii rek. xam nga mais daal jàpp leen rek. Ah, alhamdulilahi rabbil alamin waaw ah, beneen bi itam suñu gis-gis bi ñuy àndi rek ci mooy nit ki yàlla moo ñu bind ñun ñëpp waaye jamono ju nekk rek dañuy matadi ci kanamam waaye du tee buñ ko jéggaloo rek moom mu dal di ñuy jéggal ndax moo ñu wax ne qul tustaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran waaw dee leen jéggalu yàlla innahu naka yàlla kaana xafaaran nekk na aji jéggalaa moo tax jullit bu la sa moroomu jullit tooñee bu la jéggaloo da nga koy jéggal moo tax ñu ne ko jullit dafay jéggale waaye itam dafay euh, jëllale dañu ne nag amul ku dul mer dañu ne kuddul dul mer dof nga waaw ku dul mer mbaam nga waaye ka nga xam ne bu meree ah, ala kulli xaal euh, xamul giif mu ne ko kooku itam dof la kon bu ko defee nag ah, nit ki bu buñ la jéggaloon ah da ngay jéggale ndax toujours rek nit tooñ yàlla jéggalu ko mu daal lay jéggal moo tax qul tastaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran